waswaasi xannaas xulonse ba falax min sharri waswaasi izaa xasad bisimilah. <laughs> mooy sama ndey cérémonie kin faat place cérémonie kin faat place ba kilifa gi day xaw ma kan lañ jiital noonu pour mu jàng faatiha falaahi naas xam naa da doon jàng faatiha falaahi ak waaye falax gi day du mu ko jàngee. bisimilah rahmaani rahiim. qul auzu bi falax. من شر وسواس الخناس كلوز بفلق من شر وسواس زحزح بسم الله الرحمن الرحيم والله العظيم gis ngeen lii man mësuma gis mësuma gis euh, ñaa xamante ne doyadi gin doyadi doyadi gin doyadi si si si si si si jiite am réew ab gouvernement ba ni doyadee masuma kaa gis ak seen seen seen jëxantal bi moo gën a ñaw li Ablaye Wade la sax ndeysaan su ñoom am jooju xoolal ni ko wàccee la waaye yéen deen ka raw deen ka raw ba wiir duble ka rawaat ka rawaat ka c'est honteux de votre gis nga ni ngeen tëlee si ay yàlla yi nii noonu ngeen tëwee si liggéey Sénégal takk si raay wallaahi azim ngeen yaakaar ne ak pexe bu ngeen mënta teg dégg naa waaw France ñoo nekk seen ginnaaw tous lan mooy France lan mooy France bu France amoon doole du du perte Niger du perte Mali du du du du du du euh, perte euh, feneen fu waaye mu tudd Burkina Faso may leen ñu ak France ma moom jiital Amadou Ba dara cette fois yi moom bu de yéen ñëpp ay wàcc te bu soogee yàlla mu sell mi ngeen di bëgg a baare Ousmane mi ngeen di bëgg baax da ngeen di sonal seen bopp da ngeen di sonal seen bopp bu leen fàtte nag la 30 la 30 bu leen ko fàtte instant bi ñoom dañoo tiit xamuñu lan mooy xaw la 30 c'est juste le 30 décembre par rapport ma lan lañ ko bindatee noonu per victoire pour deux mille vingt quatre instant yi dañ dof la nekk ñu ba xam la ba xam lan moo la xew la 30 wallaay ngeen ko xam surprise rek ma di leen fàttali du ma jog si di leen fàttali dem leen ngeen jëli seen carte yi dem leen ngeen jëli seen carte yi ah dem leen ngeen jëli seen carte yi dem leen ngeen jëli seen carte d'identité ngir yàlla à part loolu nag hmm, waa jooju xaw ma jëlu sax ma di si ñëw jëlu ma di si ñëw la 4 janvier jëlu ma si ñëw dara nag ba fekkoon na dina def dara ngeen jiital ga waaye fii ngeen di jógee tab bi géej ba faw ñu jëlaat suñu réew rek lekk yéen li ngeen sàcc si suñu alaw ñu yóbbu leen si yoon soog soobi suñu borom na ñëpp dem jël seen kàttan ah. ñu toroxal leen ah, ñu ngi noonu waaw kay